vaccinevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. turam diw ci commissaire Khadim Ndiaye nekk ku dogo ngir jàppale njiitum réew président Macky Sall ci Yumi amal ci ay gox yu sori lool te nekkee ci département bu Mbacké ngir taataan seen ay jafe-jafe Lumu mu ci man mu daal di koy saafara li ci des mu jot ko ñi di kilifa yi dimanche juróom-ñaari fan ci atum 2023 di ñu jot naa dem ci gox bi ya, di kër kabbu ya mbolo mu takku ñoko fa teeru mu di magi dëkk bi ak jeune yi nga xamne ño fa nek ak jigen ñi ginnaw mbégte mu yaa mu ñu am ci teewaayu commissaire Khadim Ndiaye ya, jot nañu ko yeggee seen ay jafé jafé yu ñu dundu ci gox bi dañu ami jafé jafé ami bëgg-bëgg ami jax jax kep ku do ca tane ba fajj ko lo wax lañu wax lo waxul waxunu jàppale leen financement yoo xam ne war nañ koo mën a liggéeye noo ngi ñaan Macky Sall yal na jël ndamal troisième mandat te dina ko jël incha allah man li ma njëkk a ñor mooy ligne bi ligne Touba bi gi gën pax yi sërë sërë yi fii teg yi deuxième fois bi gis nga dëkk baa ngi nii courant bi fu la neex jaar waaye gis nga boo xoolee sa bët doo dox maanaam 20 mètres te mën nañu toj sam nopp lamp yoo xam si nii pilier lakk mais lamp boo gis am lamandal ma nga sa lolu tay bokku na liñu li ñu gën a yor nañ ban di di cotiser ngir jënd ay amu ñum ndox forage baa ngi nii dañuy rotan Touba wéru yalla lëmm ñu rotan ko rootaan amul fas da ngay son ko amul sare da ngay son ku ñu dimbali ci sun forage dekk bi mu tak té dañu jubay ay ku sey na ñu si bu baaxa baaxa baax sunu lamp yi bu takké xaadim fi nga bëgg a jëm dinañ ànd ak yow yóbbu la foofu. liggéey jafe na tali amuñu tali kon yéen ñu jóge ci président su ngeen demee na jàppale ci lii su ngeen ñu jàppalee yéen nu moom. Bassirou Gueye di xamle importance bi nga xam ne gox bi di Kër Kàbbu am na ko loolu tax mu koy gën bàyyiloo xel ñii di kilifa yi. Kër Kàbb future zone économique la parce que buñ nee Kër Kàbb ñëpp gis daral bi suñ nee Kër Kàbb marché au poisson. buñ ne kër kàbb abatuwaar bi kon kër kàbb nag am na lu bari loo xam ne warees na ko fee bàyyi xel ndaw ñaa ngi fi comme ni ma koy waxee yàlla main d'œuvre parce que bu fi ay ndaw amee espace am fi am naa yaakaar ci ni jàppale leen pour ñu mën a bokk ci ñuy tabax Sénégal du jafe ginnaaw doléance yi nga xam ne askan wi yeewoo ci gox boobu bii di kër kàbbu jot nañu ko yeggee commissaire Khadim Ndiaye moom commissaire Khadim Ndiaye mu jàpp ne am na lool mënul xaar ba tax na ci propre moyen fas na yéene jàppale leen ci seen jafe-jafe yooyu li ci des mu door ko yeggee kilifa yi. li nga xam ne mooy lamp yi am na lu ma leen ci wax ba pare feek suba dana sotti am na bi may ñëw lu ñu ma wax. mooy da ngeen ne manqué ay chaise bu soobee suñu borom juróom fukki chaise danaa ko lijjanti teg ko ci seen loxo sëñ fay jàkka ji am na lu ñu manqué danaa leen jox ay basan jël xale yi jox leen fukki junni jàppale leen ak téeméeri bale dana leen jox aussi ay mayo financement yi nag ñu ngi ciy dellusiwaat xëy ndaw président de la république da ko fee teg pour askan wi ñu ngi may wax léegi ne ma am na ay jeunes diplômés buñ fa jógee danañ leen wax ban yoon la ñuy jaar pour mën a am ci programme xëy ndaw yi ndax programme boo xam ne 65000 emplois président def na ko ci biir Sénégal li ci des mooy yoon bi nga xam ne moo jógee Touba di ñëw ba Kër Gaab mënut a ñàkk bas wax na ko léegi nii cela veut dire que tey jii yoon boobu bu ñu ko defaree dana baax ci koom-koomu dëkk bi dana baax ci transporteurs yi waaye dana baax ci waa dëkk bi xëy na mënuñu ko waaye danañ ko jooy fañ ko war a jooyee pour ngeen am ko waaw waaw ndox mi baawal na Touba gépp kon fii moo ci des waaw waaw xëy liñ ci man danañ ko def la ci des danañ ko jotti li kilifa yi ba buñ fi jël ci waté ndox mi mo maskali mo maskani salim mi na fujaari ngeen mën ko am fi waaw lolu ñamu fekk jiwoon ci gox bo bi ya, di feñal seen contentement ak itam yaakar ci doliku ci jëm ji ya di commissaire Khadim Ndiaye sañ Khadim Ndiaye ca kaw ca kaw a kaw a kaw yaag président ba ngeen bokk toog mu fal la la nga bëgg loolu laa lay ñaanal. xaadim bu nekkoon ne lii muy wax fii nii du ko def du ma fi indi ndax bu demee man maa fi des ak samay nit. moom commissaire Khadim Ndiaye mu jàpp ne ñiy jàppale njiitum réew mi président Macky Sall suñu ko bëggee jàppale war na ñuy wàcc ci terrain bi ngir di xam jafe-jafe askan wi liñ ci mën a saafara ñu saafara ko liñ ci mënul saafara ñu yeggee ko kilifa yi ndax kii di njiitum réew mi président Macky Sall yitteem jépp mooy taxaw ci bëgg-bëggu askan wi. politique gu président de la république politique la boo xam ne day dem ba ci gox-goxaan yi ndax li mu bëgg mooy Sénégal boo xam ne ñëpp koy bokk kenn ku ci nekk di courant di ndox di faju saa yoo ko bëggee nga mën ko mu mën laa fekk fa nga nekk. kon nag liggéey na ci loo xam ne Sénégal gépp teg nañ ci seen bët mu liggéey ko biir Touba wala Ndiaye da ne daanu dajut fépp. mënta dem fépp. loolu tax moom commissaire Khadim Ndiaye mu tàmbali ay tournée ngir di dem ci askan wi di leen déglu ngir man di xam seen ay jafe kon nag ñun ñi nekk ay ndawam ñoo mën a wàcc ci terrain bi dem ci gox goxaat yi nga xam ne ñoo gën a ruqee mel ni fii di périphérie Touba ñëw déglu leen ngeen wax ñu seen i coono liñ ci man ñu fajal ko suñu bopp liñ ci mënul ñu jaarale ko ci moom mu faj ko ndax loolu la fi nekkee depuis 2012 ba léegi nii. senevision.com kumpa tàggoo nag